gamu moom moy li tuddé euh mauloud wala soy wax nga ni mawlidi nabi manam commémoration naissance sayyiduna Muhammad la commémoration de la naissance du prophète Muhammad sallalahu alayhi wa sallam gàmmu loolu lay tekki moy magal juddu sayyiduna Muhammad ndax. Euh, dañ ne bida la manam bida ci nga mëna dégg mo moy lépp lo xamanteni amul won ci jamono ci jamono sayyidna Muhammad ci ginaaw yonent bi la awee ci ginaaw yonent bi la amee waaye nag bidaa bi da fay bida bo xamanteni bida bu rafet la ndax euh Serigne Cheikh Ahmad Tidiane ci al maktoum yàlla yàlla yok leeram mu ngi wax ci ben xasidaam nan ahazim li ahmada fi nizaamil mawlidi akrim akrim bi mawlidi ahmadin fii mawlidi nee na teralal ci maanaam guddi sayduna muhammad saai sallam ci juddoom gi te nga ni waqul li sauli fa bidaatun madiyatun azim biha min bid'atin lam tuj xadi nee na waxal ñiy laaj gàmm nan bidaa la ndax yonent bi gàmmulul woon boppam waaye nee leen bidaa la biddaa bu yàlla gërëm la kon nag màggalal ci biddaa boo xamante ni soo ko defee it kenn du la contesté azim biha min bidaatin lam tujhadi ndax dañ ni euh, màggal guddi Seydina Muhammad nekkul sax ni Seydi Xaaj Maalik moo ko njëkk a def donte moom la ko yàlla jagleel ndax suñ ne gàmmu rek xel yëpp day dem ci Seydi Xaaj Maalik ak Tiwaawan waaye Seydi Xaaj Maalik njëkkut a gàmmu wax nañ ni ki njëkk a gàmmu jamonoy Haaruna Rachid la Haaruna Rachid sorewuloon ak yenent bi ginnaaw yonent bi la waaye bokkoon na ci ñi nga xamante ni moom lañu daan woowee amirul muminin ci jamonoom ça veut dire roi wu jullit ñi waaye ci jamonoom la am waa ju ñu tudd muusa moom moo njëkk a gàmm ci li ñu àndi am na nag ay wuute waaye depuis kooku ba léegi gàmm mu ngi am waaye Seydi Hadj Malick daal ci waxin moo tax gàmmu siiw ndax commencé na ko sax lu jiitu 1902 waaye dañ ni 1902 la la tàmbali woote gi ngir gars yi di ko fekk Tiwaawan ñi màggal guddi yeneenti bi sallallahu alayhi wasallam waaye wax nañ ni ba muy njëkk a gàmmu moom ak sunu maam alxaaji rawaan ngom capal ñoo gàmmoondoo te dañ ni nii lañ gàmmoondoo mooy dañoo jël kaamilu alquran seen xaaj Malik jël première partie bi benn xaaj maam rawaan ngom jël beneen xaaj bi ñoom ñaan ñu jàng ko wax nañ ni sax am na ne ginaar lañu rey moom moo nekk première gàmm waaye loolu di barkeel di barkeel ba tey ñëpp dans le monde entier ñëppay gàmm di màggal guddi yonent bi yonent bi nag dafa juddoo noo xamante ni kenn juddoowu judd dafa juddoo noo xam ni kenn juddoowu ko ndax ba muy juddu euh, wax nañ ni tànkam la jiital ndax lu ñu miin ci góor suy juddu mooy bopp ngay ngay andi waaye moom tànk la jiital ba pare ba mu ñëwee wax nañ ni seen xaaj maalik dafa ni yuumi sababata miqbaadan asabiahu mislal musabixi yarwul ulwa zahimami jalaala rabbin rafiin qaala xiina ata wa qiila sabaxa fi takbiri zal izami nee na Seydina Muhammad ba mu juddoo dafa banque baaraamam bi comme sooy taaye ni ngay def di def nii banque baaraamam ba pare xool ca kaw ba pare naan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kon moo tax yonent bi dafa juddoo nu kenn juddoowul beneen bii mooy ci juddoom dafa am lu bari lu ci xew ba mu juddoo wax nañ ni kaaba gi dafa dafa doon jaayu lu def nii ngir gaa yi xam ni am na lu xew Seydi Hajji Maalik nee na kaaba gi ñetti fan ba yonent bi juddoo muñ ko doon jaay waaw <clears throat> maalat mamilan ma al arkaani aw sajadat taazima mustawjibin taazima muxtarami waaw kaaba gi jaayu na ñetti fan ba pare daa di sujjóot ngir màggal juddu sayyiduna muhammad ba yonent bi juddoo it bëri na xew-xew yi ci xew mooy li tax sax ci liy tegtale ni war nañoo màggal guddi juddu bi mooy malaaka yi ñëw ko njëkk a màggal wax nañu ba yonent bi juddoo bañ ko ëmbee rek waxuma sax ba mu juddoo bañ ko ëmbee qaalal malaa'iku abwaabu sama futihat kasal jinaanu wa nuuru shamsi fil izami malaaka yi ñu ngi naan buntu asamaan yi dañ ko ubbi aljana yi dañ ko ubbi mii xeeñ xeet xet gu neex ba pare ñu naan an atiru baxiru xayral buxuuri wa afrisu sajadaati takriman alal xusami maanaam nañu parfum wu nañu def cuuraay yu neex lal sijaada yi ngir teral ki nga xamante ni moo gën moo gën a sell ci cosaan te mooy sayyiduna muhammad waaye daal ci gàttal li tax Seydi Haaji Malik woote daf ko wax dafa ni ala azimu laylal wiladati xisbatan isa lam yakun naxwal xaraami udul Seydi Haaji dafa woote ni ala waa weew maanaam kaay leen gaa yi ñëw wala boog su ngeen bëggee dégg mooy bu njëkk buur daraan baaxoo su daan jàllale message day woo géwal géwal jël ndëndam tëgg ne déglu leen jàmm la gaa yëpp dajaloo mën leen buur nee na nangam waaye ci waxin Seydi Hajj Maalik dafa woote ba ñëpp ñëw mu ne leen azimu laylal wilaadati yi leen màggal guddi juddu Seydina Muhammad mais ne dañ ko laaj lu tax ñu koy def mu ne xisbatan ngir sàkku yoon xam ngeen lan mooy gàmm mooy ñëpp ñëw nga ñu woy yonent bi ba pare suñu paree oustaz ñëw wax kan mooy yonent bi yan jikko la amoon naka la yonenti bi daan dundé ngir ñu mën comme yonenti bi yàlla mo ni ci alquran walakum fi rasulillahi iswatun hasana liman kaana yarjullaha wal yawmil akhir wa zakara zakarallaha kaseera ngir ñu mëna roy yonenti bi mais ko xamul jukum do ko mëna roy kon gamu moy wote ba ñëpp ñëw nga wax len kan moy sayyiduna muhammad Seydi Xaaj Maalik nag tuyaaba boobu lañ ñu bëggal moo tax mu ne suñu gàmmoo ñu am tuyaaba waaye mu teg ci benn condition mooy isa lam yakun naxwal xaraami udulu ndegam jéngoo leen di jëm ci lu xaram maanaam su fekkente ni da ngay gàmmu ji dem ba Tiwaawan di fa mooy yàlla Seydi Xaaj Maalik woowu su fekkente ne da ngay dem ba Tiwaawan di fa di fa sàcc ci waxin di tafu gaay yi ndax day am ñoo xam ne dañuy ñëw ci jàkka yi waaye gàmmu yóbbuwa leen dañoo dem ngir tafu li nit ñu yor kon kooku Seydi Hadj malik nee na woowu ko ndax Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al day wax ni saafara su ndaree jur jàngoro ñu bàyyi ko. yow nga ñëwoon ngir ut tuyaaba far ngay dem di uti bàkkaar jaratu ko toogal te Seydi Hadj Malick waxoon na ni bi azami zamani wal makaani taazumu taaatu ma alaysiani nee na euh, jamono yi ni ñu ëppantee doole comme weer yi xam ngeen ni weeru koor bokkul ak beneen weer ndax soo soo jaamoo yàlla ci weeru koor dañ la koy multiplier soo jaamoo yàlla ci bësu tabaski ci waxin dañ la koy multiplier guddi gàmmu it soo ci jaamoo yàlla ngir màggalee ko yonent bi dañ la koy multiplier ci récompense waaye soo ci moyee yàlla noonu lay toll dañ la koy multiplier du doon benn bàkkaar ndax bàkkaar bi nga def dakaar tollawul doole ak bàkkaar bi nga def Màkka wala Medina ndax Màkka wala Medina soo fa jullee benn rakka yàlla daf la koy multiplier par mille junni rakk waaye nag Dakar ak Tiwaawan bokkuñu ndax ñi fa tëdd moo tax kon moo tax Seydi xaaj Malick woote na gàmmu ngir ñu màggal yonent bi waaye daf ci teg ay condition ne nii laa bëgg ngeen màggalee ko guddi Seydina Muhammad kon daal ci gàttal lii mooy gàmmu mooy màggal guddi juddu Seydina Muhammad ci fàttaliku ni mu juddoo ak fàttaliku lan moo nekkoon jikko yonent bi sallallahu alayhi ko yaa kitaabal karim anta ci zawiya bi fii gis nga ko yéen a ngi dégg sànq ñu ngi doon def lu ñuy tuddee burd dañ naan nag burdu mais burda burdatul madix la mooy Seydi Hajji yi dafa jël benn téere boo xam ne bindu ko imaamul Busayri moo ko bind égyptien la égyptien la waaye dafa bindoon benn téere ci yonent bi muy téere bu yéeme muy burd nga xamante ni am na sax ñu ne tuddul woon burdu mais bur a tuddoon mooy luy tuddee muy wér maanaam euh, la guérison waaw ci tubaab ndax dañ ni imaam Busayri dafa feebaroon loxo bi dafa semoon men lu gaana mu faju faju teewoo wér mu ne xaaral ma tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam def tawassul ci moom ñaan yàlla ngir sama sama feebar bi wér mu commencé di tagg yonent bi di tagg yonent bi wax nañ ni ba àgg ci benn bayit boo xamante ni verbe bi mooy fa mabal fa mablawul ilmi fiihi annahu basharun wa annahu xayru xalqillaahi kullihim mooy da doon tag yonent bi di di wax ay yonent bi ci ay garaat naan yonent bi jant la naan yonent bi saai sallam dafa mel ni géej ndax loolu yëpp daf koy melal def lu ñu tuddee listiaara ci arab mooy melal yonent bi ci tabam ak xam-xamam waaye mujj gi mu ne daal ah maa ngi wax boobu ba léegi ay qualité ci yonent bi waaye yonent bi daal nit la rek léegi nag mu daal di gag mënatul àggale yenent bi moo ko feeñu ne ko qul wa wa annahu xayru xalqillaahi kullihimi imam Busayri waxal ni yenent bi nit la de waaye mboolem kuy nit sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi moo la gën wax nañ ni ci loolu la yenent bi raaye loxo bi loxo bi daal di wér ak nag yeneen yi yenent bi sallallahu alayhi wax nañ ni euh, ci ba mu raayee loxo imaamul Busayri kon moom moo participé waale ci burdu ndax bayit boobu moom moo ko àggale waaye nag ngir secret yi nekk ci burdu ak li ci imaamu Busayri wax moo tax Seydi Hadji jël téere bi ne fukki fan yi balaa gàmm chaque jour nañuy jàng benn chapitre muy benn bunt moom lañ doon jàng sànq tey ci neuvième bunt bi imaam Busayri di ci wax ci taggu yonent bi ak tawassul maanaam di ñaan ci barke Seydina Muhammad kon moo taxit ci niñ koy royee ñun ci waa Tiwaawan burdu ci euh, zawiya Seydil Hadj Malick ñu koy def comme ni ko suñuy sëriñ di defee Tiwaawan chaque guddi ñu jël benn bunt ñu nit jàng ko royee ko waa Tiwaawan royee ko ni ko Seydil Hadj Malick daan defee ngir waajalee ko sunu gàmm ndax mawlaaya salli wa sallim bi ngay wax mooy dañuy julli ci yonent bi lan lay firi mooy mawlaaya salli yow yàlla maanaam yow kilifa gi salli yàlla nga julli wa sallim te nga sëlmal daa iman ba faw abadan maanaam ba faw ndax julli gi du am dog du arrêté yow yàlla ci kan ala habibika ci sa soppe bi nga xamante ni mooy xayril xalqi moo gën ci ko képp ku ko bind kullihimi nag kon moo tax ci waxin ñun dañuy julli ci yonent bi di julli ci yonent bi ba jouru gàmmu nag ñu dem Tiwaawan ànd kook suñu kilifa ñu wax ñu kan mooy yenenti bi ba pare du ca yam ñu dénku waxaat ñu fan la ñuy tegaat suñu tànk ci jikko ngir sunu àdduna mën a jag waaye ngir it sunu dundin ak suñuy moroom suñuy moroomu jaamu yàlla mën a jag waaye it sunu diggante ak sunu borom mën a jag kon zawiya bi daal ñu ngi ci burdu bi ba incha allah ba ñuy dem Tiwaawan di fa gàmmoo waaw nii lañuy ñuy préparé bi te chaque jour yi ci guddi gi suñu burdoo ba pare dina am ku firi buntu burdu bi moo xam man la wala sama waaju di imaam Ousmane Diop wala Abdourahman wala professeur amin Kebe ku ci nekk chaque jour am na ku war a firi benn bunt jàngalewaale ci jikko Seydina Muhammad moo tax nii la ñuy àndee ba gàmmu jot incha allah noonu la ñuy demee Tiwaawan wird ci moo la boo xamante ni day tekki lu ñuy tuddee rootuwaay comme source que xamantene ne da ngay dem roté ngir ngir euh, nan wala sangu mom moy dit tuddé wir waaye dal ci sens bi moy tuddé ci euh, français litanie wala oraison nga chaque jour dang koy répéter spirituellement chaque jour ngir wax diko tewlu xol dafa am Lumi, lumi def sa sa ak moom mooy li nga xamante ni jaamu yàlla yi dañ ciy jàpp ngir mën a defaru jëm ci yonent bi jëm ci seen borom wéeru tijaan nag ci waxin euh, Cheikh Seydi Ahmed Tijaani maamam moo ko feeñu jox ko tariqa bi ndax moom njëkkoon na jàpp yeneen tariqa ba jàpp tariqa bu muy mëj a jàpp moom la ñuy wax tariqatul xalwatiya mi ngi ko jàppee woon ci imaamu euh, kurdu yu ba koy imaam Kurdi yu muqaddamalee nag ci tariqaam boobu muy xalwatiya wax nañ ni ci la ko yonent bi feeñu jox ko tariqa tijaan waaye tariqa bi nag dafa composé wu ci ay wird wird yi nag su dee wird yi nga xamante ni soo c'est obligatoire ñu koy wax awraadul lazima ñett la mooy lu ñuy tuddee lazim ak lu ñuy tuddee wazifa ak lu ñuy tuddee xadaratul juma su fekkee lazim la nag moom mooy wird bi nga xamante ni am na ñoo xamante ne dañ koy def suba benn yoon par par jour benn wala benn yoon suba wala benn yoon ci ngoon waaye su fekkente ne ñi aju ci kër xaaj maa Malick nag ñoom dañ koy def suba ak ngoon laazim mooy da ngay jàng fatiha jàng astaghfirullah astaghfirullah ba muy téeméer nga jàng salaatul fatihi téeméer jàng laa ilaha illallah téeméer tëj ba mu jeex nga daal di loolu moom mooy laazim waaye su dee wasifa mooy li ñuy def ci jàkka yi ginnaaw fajar wala ginnaaw timis nga xamante ni astawirullah al azim allazi ngay jàng fanweeri yoon ginnaaw ba nga jàngee fatiha jàng salaatul fatihi juróom fukk jàng laa ilaha illallah téeméer jàng lu ñuy tuddee jawharatul kamal fukki yoon ak ñaar loolu mooy wasifa su fekkente ni beneen wird bi la boobu chaque ngoonu àjjuma la muy ginnaaw tàkkusaan ba jant bi di soo muy timis moom la ñuy wax xadaratul juma moom moom la def ba tey ci jàkka yi ci ngoonu àjjuma da ngay def fatiha ak astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum ñetti yoon def salaatul fatihi ñetti yoon def laa ilaha illallah laa ilaha illallah soo fekkente ni yow dong yaay wéet bëgg nañ nga am ci junni soo paree nga teg ci allah allah ñetti téeméer wala juróomi téeméer waaye su fekkente ni nag ci mbooloo la foofu tënkuwul ci lim boobaa da ngeen di def rek ba timis jot boobaa du tënku ci lim waaye daal ci gàttal lii moom mooy wedd yi nga xamante ni obligatoire la am na nag yeneen awraat waaye yooyu wérdi spécial la dalay neex nga dem ñanti ci ndigal jël ko wala boog yaa xam su fekkee mënoo ko mais l'essentiel mooy soo jëlee tariqa bi ñetti yi ma tudd c'est obligatoire dafa mel ni sa cinq prières danga ko war a def obligatoirement soo ko faatee da nga ko war a fay waaye ñett yi ma tudd it muy euh, wasifa lazim ak xadatul juma maanaam c'est obligatoire nga def ko comme ni ngay defee julli juróom. waaw ñu ngi gërëm bu baax waa cey dakaar nga xamante ni ah la boo xamante ni euh, dafa ñëw ngir yee nit ñi ngir xibaar leen te teg ko ci lu ñuy tuddee éthique ak déontologie maanaam lépp day nekk ci source yu yu xamante ni yu sûr la. yu wóor la ba soo fa jëlee information day nekk information boo xamante ni daal information bu fiable ndax kat ñu bàyyi xel ne jullit ñi yàlla dafa waxoon ni euh, in jaakum min fasiqin bi na naba in fatabayyanu yàlla dafa ni woon suñ leen indi leetee information na ngeen xool ndax c'est fiable wala c'est pas fiable mais buñ la wax rek nga daal di gëm waaye ñoom it ñu ngi travailler ci loolu ndax am na ñu bëri ñii dégg gàmmu te xamuñu lan mooy gàmm waaw dañoo foogoon nit ñi dañuy woote rek dajaloo kon tey permettre ngeen ci ñu bëri ñu wax leen ba ñu xam lan mooy gàmmu ak kan mooy Seydil Hadji Malick ak lan moo tax mu woote gàmmu ak condition yi ko teg kon yéen ñun ñoo leen war a gërëm ñaanal leen yàlla seen lii yàlla yàlla dem ba def ko muy télé bu mag ñu leen di dégg fu sori kon ñu ngi leen di gërëm ñu ni sunu kàddu ci kàddu imam euh, Alhaaji Ousmane Diop mii imaamu zawiya bi nga xam ni moom la fi yàlla teg ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal yàlla di ñaan daal seen euh, entreprise bi seen sit bi yàlla na yàlla yokk ko ba dem mu nekk télé am rajo amaale it journal yàlla yàlla def ko bi jaay séddal wujud barke bërëb bi waaye barke it yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamante ni moo tax ngeen ñëw fii ngir bëgg ñëpp jot ci kon yàlla yàlla barkeel bi jaay séddal wujud waaw ñu ngi leen di gërëm bu baax wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu